ñëw bu baax a baax wuy ci seen wooteeb seen leader yi place bu l'Obélisque xale yi wutali nañu ko ak doole ñu ànd ak ay gëm-gëm yu wér yi ndaw ñoom ñëpp takk nañu drapeau national bi jàpp na lu ni mel geste buy firndeel ne da bëgg sa réew li de la nation la ñun ay patriote lañ gëm Sénégal gëm suñu bopp bëgg réew mi am jàmm am salaam. yaa ngi dégg ñu géreel ko suñu bopp kenn bañ ñoo rax comprendre nga loolu tax drapeau moom képp ku ko gis boo mu yor ko rek xamal ne ku gëm réewam la. bokk ak moom gis-gis ndaw bi tamit gis ne réewam rek moo tax muy dund te pare na joxe lépp lu mu mën ngir askanu Sénégal. nekk ci jàmm. lii sama xol la Sénégal aw ci sago dëkk bi dañ ko bëgg ñu ñoo ko moom gëm nañ ne Sénégal mun na avancer gëm nañ ne lu ñuy dund nii ko dund Sénégal ndaw yi fi nekk yëpp war nañ xëy Sénégal liggéey war na fi am. jàpp alalu réew mi di ko def nu leen neex te kenn du wax ku wax ñu jàpp tëj fu ñu ko teg. démocratie Macky Sall delloo gannaaw notre démocratie est à terre. bu Sénégal doon na symbole boo xam ne dafay firndeel ne ci senegal nga bokk moo tax. couleur nationale jeunesse bu Sénégal ne nag am na ci fierté ci seen bëggeel ci seen patrie.